waaw sant dañ yombul. xam nga ne Bamba xam na ne yombul yombul defar. xam nga ne ngeen dox seen wàccuwaay. jaajëfatee sax si yéen rek. jaajëf waaw ngeen ngeen xoolee ngeen gisee bis bi. waaw bis bi de moom rafet na trop. Mhm. dañ koy sant Serigne Touba rek te yàlla ji tax. alhamdulilah waaw gis nga moom bisu Serigne Touba bi daal. Mhm. lu ci waay jaayante daal. Mhm. lépp daal yow la daal. alhamdulilah yéeme na trop nag. yéeme na lool. ma ne ko yéeme na trop daal. waaw ah, day na waay mais di sant rek. alhamdulilah sant bu wér a wér. jaajëf jaajëf. jaajëf waay eh, kon ba si kanam incha allah. waaw jaama xew waaw mbégte continuité. jaajëf waay jaajëf jëwri. jaaraama yaa ngeen jëf waay. seen yéene rek mbégte rek ma waaw waaw moo bi daal mbégte la dëgg la doo ci yokk leen rek mm, dëgg la sant sëñ Touba alhamdulilah jaajëf amul leen lu ci yow jaajëf jaajëf mo jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jaajëf waaw waa Guy Mbind na ngi nii nag waaw waa Guy Mbind waa Guy Mbind na ngi nii nag waa janatu max waaye nii waaw waaw waaw waaw waaw bajan ngeen siyaare de lépp taw feex ndax bis bi nag santai ah, rek santai ah, sant rek de waaw sant yàlla alhamdulilah lii moom hmm. sëñ Touba rek moo ko bëgg jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf ndaw jërëjëf jërëjëf waaw waaw waaw bàjjen andiku waaw sant waaw sant rek sant rek. jaajëf waay jaajëf. jaajëf ah, ñu koy teew ay déwén yu bari bari bari bari yàlla yokk xewal yi. ah dafa ñu jàmm ah dafa ko mën a Serigne Touba amul moom. waaw kii kan la yow. <laughs> sa waay rango nga bagage rek. lépp liggéeyal ah. Serigne Touba. Ah, rango na bagage de. ah Serigne Touba ku tedd ki rek jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. tey moom Ahmadou borom jaam yi. waaw waaw waaw waaw waaw. Baye Talla. waaw ñu ngi siyaar rek. waaw suñu bàyyi suñu jëwriñ. waaw yaa ñu gën a xam la xew waaw nga bëggoon nga toftantal ci rek waaw dimbali si ñun taalibe yi nga xam ne yeneen suñuy baay barke borom ñaari guddi Ndakaaru yi moom mhm. metti woon na waaye tey neex na alhamdulilah jeex na tak alhamdulilah waaw Serigne Touba mhm. euh, euh, moom moom waaw waaw ku mu neex loolu am ku mu naqarit loolu waaw waaw alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin na ñëpp sant rek alhamdulilah jërëjëf borom jërëjëf borom Touba jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf liggéeyal sëñ Tuubaa macha allah yàlla yokk sa xéwal amiin yàlla baal leen suñu kanam bés bi tey bés bu rëy la ci ñun ndax sëñ Tuba jaral nañu lu ne barke Balla ak Maara maam jaara bu ma ja Porokhane maam jërëjëf sëñ Tuba jërëjëf sëñ Tuba jërëjëf sëñ Tuba jërëjëf sëñ Tuba jërëjëf sëñ Tuba kontaan nañ li musu am de tey jii nag lépp ñëw na mm-hmm. lu ñu metti woon tey nañ ko bég nañ ko mm-hmm. ban mm-hmm. jaaxle woon nañ sonnoon nañ waaye tey yépp a jeex na nañ ban kontaan nañ bég nañ lii de kenn musu ko fay la lu sëñ Touba dëgg la moom lay am nag tey ba ëllëg Mbàkke Bàll ak maram yàlla yàlla yokk leer bi. amiin amiin na yàlla yokk leer bi. allahumma amiin ak sa njaboot ak say set ak mboolem jullit nag. allahumma amiin ak ñun ak suñu njaboot ak suñu set ak mboolem jullit nag. allahumma amiin allahumma amiin yàlla taas ñu sa barke. allahumma amiin jaay. yàlla yàlla taas ci suñu barke. allahumma amiin jaay. yéen ñi fi yàlla bàyyi dem yéen ne yàlla may gudd fan may leen wér. allahumma amiin jaay na fekk njëriñ ñëpp. yàlla defal jàmm. amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Ndiaye. jërëjëf jërëjëf yal nañ ko yal nañ ko teeyaat yu bari rek suñu borom bàyyi suñu kanam tamit moo fekkee suñu njëriñ njaay njaay ñu bokk ci njabootu Serigne Touba gi yàlla boole ñu ci bis bi tey ñu jógee Touba ba dikk tey fekk mhm. ñoo ngi sant yàlla ak yonante bi ak Serigne Touba mhm. di ànd ak mbégte moo xamee nag ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mhm. dañuy bëgg ba abadan laay man dafa ñoo ngi sant Serigne Touba bu wér a wér a te yàlla na xiwal ñu yokk ci barke Serigne Touba Mbacke yàlla na nu yàlla la fal cat mosal ñu ci am ndox mosal ñu ci saytaan mosal ñu ci sunuy noonu lépp nag pexem noonu rek moo ko waral waaye nag am naa yaakaar ne tey képp ku di taalibe rek am nga yëg-yëg tey ci sago xuloon am naa yaakaar ne tey ndam li rek tey na fii ñetti jumaayam yi képp ku di taalibe rek am nga ci ndam yàlla na doole ndam di ba ci Seydina Muhammad te saxal ñu ci lislaam saxal ci sunu njaboot musal leen cat musal ci am ndox ba kenn ku fa nga bëgg a yëg ci yoonu Sëriñ Tuubaa yàlla na fa yàlla yëg yàlla nan fi yàlla yàggal ñu doon murid ñu am ndigal tey liggéey sëñ Tuubaa abadan man da ci laa teg sama tànk ak bu ma jiite rek loolu rek laa lay sant bu barke sëñ Tuubaa Mbàkke waaw ak juma ji jot ma xëy ca jumaay sëñ Bamba ji altine ji jot ma xëy ca jumaay sëñ Bamba ji altine ji jot ma alxames ma dem kër sëñ Saali Mbacke di ko liggéeyee di laayir maa fat jaxat kon nag man li ma leen di ñaax mhm. nan fas yéenee takku mhm. gën a liggéey sëñ Tuubaa rek te xam ne ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam sëñ Tuubaa nag ku ànd ak moom doo jàpp doo tiit mhm. lépp luy sa soxla rek moo la koy fajal yal nañu yàlla jàppale ci doole Serigne Touba Mbacke ndax fi nga jaar yi maa ngi jóge ba Touba jaay ko ba yëkki jërëjëf ndaw ko sama njaboot ak ci sëñ Touba sama njaboot yal na yàlla xiir ci ak lislaam li sëñ Touba bëgg yal na yàlla xiir yéen ñëpp ak mbooloo bi yal na yàlla xiir ci njub lislaam yal na yàlla xiir ci njub lislaam di bëgg borom Tuuba maa ko ko ñaan ci bésam bu tedd bu rafet bu neex bu tey yal na ko yàlla def amiin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla may leen gudd fan may leen wér yàlla yokk seen suuf yokk seen talaang di leen guddi wërsëgu yaatu yaatu yaatu di leen guddi xéewal xéewal xéewal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Ndiaye jërëjëf waaw sëñ Fallou nag mel ni ñoo ne si immigration bi de. Ah, waaw waaw immigration ah, ah, mënuñu mënul ñàkk. xanaa rek kon waaw nga dugal ñu rek wax ñu si bis bi waaw dimbali si ay ak ay kàddu. dimbali rek. <laughs> alhamdulilah xéwal rek ñëpp kontaan vraiment. waaw Ndakaaru jël nañ paie. dëgg la waaw ah. sëñ Fall ah, waaw santaat rek. Ah, waaw kontaan nañ si teew bi tamit de. waaw jaajëf barke borom Tuubaa dëgg la dëgg la waay. waaw Tuubaa rek la noonu. Mhm. moom la ñuy sant moom la ñuy gërëm. Mhm. ni ko imaam bi waxee rek. Mhm. wala tuwaa xisum bi maa leen ko wala hum ubbi la si laayoon faw. loolu la wax waaw. nga xamante ni Serigne Touba. liggéeyam bu rëy. li muy rëy rëy rëy rëy wa ab li li muy rëy rëy rëy dafa wax ni. liggéey bi li muy rëy rëy def na ko ngir mu waaw. man la si bàyyi boobu nga xamante ni moom la Serigne وحولنا يا ربنا بركتنا للمسلمين ابدا ورحمه moom daal. tabaarakalla sant na lu baax daal. saar nañ leen de. waaw mais waaw waaw mbégte gi. li ñu des ci liggéey daal mooy sant sëñ Tuubaa. sant sëñ Tuubaa rek. waaw waaw jërëjëf sëñ Tuubaa xew na daal moo si def. au calme. bàyyi nga am jàmm waaw ñu ngi sant bu baax. tey moom ab màggal lañ def rek. waaw waaw waaw tey moom journée bi neex na trop macha mm-hmm, allah. Mm-hmm, mm-hmm. waaw. couverture bi moom dal na ko moom macha allah. alhamdulilah alhamdulilah kii moom boo xoolee xam ne sëñ Bamba amul morom. dafa gën a waneti boppam rek. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. suñu borom may na ko daal. loolu moo tax war nañ def gën a yokku taalibe yi ñu ne. dëgg gën a jullite nekk topp ci yoon bi. waaw. dina ci baax daal. jaajëf jaajëf dañu góorgóorlu rek gën a góorgóorlu. waaw parce que kanam kon sëñ Bas yaay sëñ Basiiru de. waaw waaw yàgg na waaw ñu bëggoon nga sànni si kàddu yoo tamit <laughs> waaw si si bis bi yaay soxna jaara li ko fi indi waaw waaw li ko fi indi mhm. yàlla bu ñu ko ñàkk mhm. yàlla yàlla leen yàlla làq fa yàq yeggul amiin amiin yàlla xol yàlla gën a boole xol yi ñu gën a juboo gën a bokk ndey bokk baay barke yonent bi amiin jërëjëf jërëjëf waaw mboo jaa ngi nii waaw waaw yéen a ngi si màggal bi waaw jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf tata may di jaajëf waaw gaay gaay ñu waaw waaw rek yéen kay yéen ñu ko war ah dëgg sant yàlla rek sëñ Touba keneen la. ak ci Cheikh Ahmadou. neex na neex na. Mhm. bilaay neex na. alhamdulilah mbégte gi ñu ngi rey suba ba tey te xamuñu lu ñuy rey. ko yàgg a teewee. Ah, waaw waaw. barki borom Touba. bu doon am chaque vendredi sax ñu jël. daa ngeen jëf. Ah, waaw ah, waaw daa ngeen jëf. sama gars yi. ngeen di bëggee de. dëgg rek ngeen di bëggee ah. sant Serigne Touba rek. daa ngeen jëf daa ngeen jëf daa ngeen jëf. sant Serigne Touba rek. daa ngeen jëf. moom rek. daa ngeen jëf sama kese rek dong. waaw waaw amul leneen amul keneen.

ñu toll nii yëpp lépp lépp yaatu. lépp lëngu. lépp maam Bamba Kara. chaque le septembre. mooy li ñuy jàpp rek nañu waay. chaque le 27 septembre. magalum Dakar. Mm-hmm. bés tey. dëgg la looloo dekk. dëgg la na.